Voilà le reportage encore une fois ça continue ba tey ñu ngi fii ci marché Kër Moussa frère nuyu naa la. fay naa la sëñ bi. tur bi naan nga. Baye lañ koy wax. Baye naka nga gisee yëkkati bi ana lan ngay wax ci loolu. non fii moom actuellement li ñu fi wax lu ñu jàkkandoog métti na vraiment monsieur le maire na xam ne fii ay njabootam ñoo fi nekk te en plus it lu ñu métti fii kan Massar ñun ko wax ndax amuñ benn média boo xam ne mën naa taxaw fii ñu wax ko fi ni autorité nga te ngay dégg lii ñu ngi lay ñaan nga génn nga wax ci ndax lii métti na bu fu métti yem ndax homme de terre yi dañuy ñëw fii di ñu dàq di ñu dàq ñuy yéeg ba ci escalier ñu ci fekk vraiment te buñ taxawee tamit responsé day xeex xeex day am te ñun bëgguñ xeex bëgguñ xuloo dañuy bëgg maanaam di liggéey euh, di am triangle di yóbbu si njaboot vraiment bëgguñu taxaw fi di am ak kenn ak problème monsieur le maire bu wàccee ci terrain bi mel ni moom moom moom nit ñi di ngan ngan lu di band band lu yooyu nag da ko a bàyyi gis nga fii bu ñëwee maanaam askanu Kër Massar ñoo ko fi teg te ñun ñu liggéey fii waa Kër Massar ñoo koy ñu génn ci dëgg nekkuñu ci yoon nañ wax lu ñu liggéey fii Kër Massar lay ñu koy yóbbu feneen ñu liggéey fii seen ndox la jëm seen courant la jëm seen kër la jëm mën nañu da gis koo xam ne Kër Massar la nekk yor 4 4 appartement di ko di ñu ko luyee ñuy way appartement quatre-vingt mille wala néeg trente-cinq mille francs boo liggéeyoo si marché fan nga amee nañ wax dëgg ah ñun li am fii lañ ko mën a amee depuis fii sept ans ñëpp a ngi fi maanaam fii waxuma dara autorité bu ñu fi ñëwee bu ñu fi jaayoon téléphone un million dañ koy jënd bu ñu gis ñi taxawal ci mbedd mi rek ñu foog ne maanaam ay ay ay leneen lañ ay colossar lañ wala leneen lañ wala dañuy tux wala leneen te tamit monsieur le maire ñu ngi koy dégg muy wax kàddu yoo xam ne yu ñu métti la warta taxaw fii duñ gor 75 000 yi est-ce que dëgg la. ñin dañuy wax ñaar maanaam euh, fii ñin bépp ambulant bu fi nekk man dégg naa man mi woo nañ ma fu nekk naan 75 000 75 000 dama ko bëgg a xamal na ko bu dee daa yor 75 000 na téye 75 000 am ñun soxluñ 75 000 ñun xam nga lan lañ soxla ñun fuñ toog liggéey lañ bëgg. bu ñu amee fu ñu toog liggéey ay millions dinañu fekk ñun 75000 bu ñu ci dépassé benn fan day jeex ñu ñun soxluñ 75000 francs na téye 75000 am. mon frère nuyu naa la. waaw ça va lépp jàmm. tur bi naan nga. man maa ngi tudd Yaya Mbodj. Yaya Mbodj. Mhm. gannaaw bañ leen yëkkatee yan jafe-jafe ngeen di dund actuellement ak préparation tabaski bi di ñëw. ñun li ñuy dund yëpp mooy dañoo nax nax bi weesuwul ñu fal la ngay président di gis li ñuy daj fii yëpp ñun 2015 ba léegi ñoo ngi si fii di liggéey. huit tey ñoo ngi liggéey fii di daan doole place yi ku ko defar fii place six millions lañ lay wax sept millions amuñu ko li ñu am la ñuy def place tey jii boo boo boo joxewul six millions doo am caabi bay bay liggéey léegi nag li ñu mun mooy ambulant léegi ambilan bi lañ ñu teree ambulant ba bitim réew am na fa ambulant am na ba ba États-Unis am na ba itali ak ak yeneen dëkk yëpp comprendre nga léegi nag li li war mooy ñu bàyyi nit ñi ñu liggéey ñu bàyyi seen jaay doole yi ñu nekkee indi nañ mairie doyul ñu dégager fii yëpp ñu indi gendarmerie yaa ngi dégg indi sendar gendarmerie indi lépp pour lan pour toroxal ñu te ñun ay jullit lañu ay góor lañu duñu ay sàcc duñu duñu ay nitu fumiste yaa ngi dégg ñun dëgg la ñuy dox dañuy lu lew la ñuy jël di ko dundal suñuy njaboot. voilà loolu loolu aussi lu lew la jël di ko dundal suñuy njaboot yaa ngi dégg. kon nag nguur gi war naa bàyyi doomu aadama yi ñu liggéey dëkk bii nekkul dëkk boo xamante ni dafa am yenn fonction yi ba ñuy tere nit ñi ambulant bu doon Europe la wala Amérique am nañ yooyu noonu am nañ ay usine am nañ ay liggéeykaay yoo xamante ni mun nañoo jël doomu aadama di leen fay chaque weer fii ku la fi jël chaque weer cinquante mille la lay fay weer bu bëree ba bëree cent mille francs duñ la embauché moo tax kenn liggéeyul weer commerce nag mun nga mun nga mun nga commerce fii nga am benn journée rek cinquante mille wala cent mille wala wala wala wala cinq mille yaa ngi dégg léegi nag dañoo bëgg ñu bàyyi ñu ñu liggéey nañ ñu bàyyi ñu liggéey boo léegi nag ñoo ngi ñuy buux ñuy aneer ñoo ngi ñuy buux ñuy aneer dakk nañu seen territoire ñu aneer ñu ñëwaat si escalier yi fii dàkku ñu ñu annière yaa ngi dégg ñun nag ñoo ngi muñ boobu ba léegi am na lu ñu rus nag gars yi nga gis ni yëpp sonko lañ votel ñii nga gis ni yëpp sonko lañ votel ñoo lañ fi ndax ñu baleloo ñu ba ñuy bëgg a dee ñu ne dañuy jox ku nekk soixante-quinze ko si ay fen kese am réew am réew bu dee ñun sénégalais yi ñoo taxaw ne Ousmane Sonko dañoo bëgg suñu réew mi nga ñu ko kenn ku ci nekk ca la nga nekk ne bu ko Ousmane Sonko laalee di ko jubbanti sa internet personnel laal na ko nga ne sama waa ji ah mu ngi yàq réew mi kon réew mi du jag nan waxante dëgg. kon yow yëkkati bi d'accord nga ci. dama ne man samay mag fii la ñu amee teranga kii sama waajur la fii lay amee teranga suñ ko xañee teranga man lañ xañ teranga man sama place fii la nekk ci kaw li lay wax naan la ay place cinq cent ay ay place ay vingt-sept millions du dëgg man quarante mille laay fay avance trois cent mille laa joxe place ci laa nekk ñëpp mënuñoo am place. ñëpp mënuñoo am place dëgg la mais kaw territoire nañu waxante dëgg kaw territoire du yoon mën nañoo wax ne kat mën nañ leen ñaan mën nañ leen ñaan bañ bàyyi ñu ñu liggéey ba tabaski bi jàll d'accord mais réew mi ñu ko bëggee defar kaw territoire bi dañ koy defar yaa ngi may dégg ñii ñii maanaam ci ñuy yàq Sénégal ci lañ jëm moom lañ bëgg moom la ñuy doxee affaire ruube yi yooyu lañ nekkee yaa ngi dégg moo tax gis nañ fi barke Demba Ndiaye maître El Hadj Diouf bi ko jëlee xàcc ko seen wet comme muy def ni lay def amuñ ci ndam yaa ngi dégg en tout cas en tout cas ñun suñu maire bi la ñuy waxal jeunes yi fi nekk Kër Massar dañ koo bëgg mais nag sénégalais saa boo laalee li nga xam ne mooy intérêt day gis boppam mais li maire bi di def wallaahi laasim yàlla rek moo ma tax di wax liggéey la mais na waxtaan ak ñoom mu xool fu mu leen teg ñu jéem a organiser wu ba tabaski bi jàll kenn ku ci nekk jéem a xool ci lan ngay placé wu mooy li jag ñoo ngi leen di jaajëfal. tur bi naan nga. man musa Diouf laa tudd. Moussa Diouf. waaw gis nañu yëkkati biñ ngeen yëkkati dégg nañu ni maire bi jox na ñi mu yëkkati ku nekk soixante-quinze mille loolu noonu est-ce que c'est avéré ak naka nga gisee yëkkati bi. waaw man loolu si yow laa ko déggee yaa ngi dégg mais nag dañoo war a dimbali gars yi quoi tamit dañoo war a dimbali gaa yi jaaykat yi tamit mala sum waay tamit ñoom ñu def loo xam ne tamit duñ leen mala sum waay manque de respect yaa ngi dégg mais tamit gis nga Sénégal fii nii dañoo dañoo bindoo noo xam ne lii naar bu ndaw ba la mu def ca naar mag ba gisee ñun lii yëpp mala sum waay dañ ko gis ba ba ñuy booy yaa ngi dégg kon war nañu mën a dimbali gars yi rek yaa ngi dégg ñu jaay ba événement bi passé yaa ngi dégg bu ñuy lef dara ñu def dara mais man lenn moo ma jaaxal gars yi ñooy sànni xeer yaa ngi dégg ñooy voté yaa ngi ñooy dugg ci kër yi ñooy sans sans si xaw ma nu ko sax sensibiliser xaw ma nit ñi yaa ngi dégg mais kon yaay voté yaay def lépp kooku falu toog avion moo koy yóbbu yaa ngi dégg mooy toog ci bureau te bopp man loolu moo ma jaaxal ci dëkk bi barke alxuraan loolu rek moo ma jaaxal billaahi mais tamit gars yi nañ jàpp fuñ rek bañ a bàyyi moom man su maay yàlla waxul kenn dara yaa ngi dégg loo gis day jeex mais nañ dimbali jeunesse bi te yàlla tax ngir jëm Seydina Mohamed nañ dimbali jeunesse bi tamit gars toog rek man su maay na yaay buur doo dara yàlla rek moo la fa teg yaa ngi dégg wóor na alxuraan karim lan la di def rek ngay def da ngay dugg duus da ngay saw yaa ngi dégg da ngay nelaw da ngay jàpp ci xale yi bu baax a baax kon ni ñu jàppee seen bopp dañ ko jàppee ñëpp dañ ko jàppee ñëpp te yàlla taxawaay mbokk yi lii la woon sur la TMS TV tey ñu wàccoon fekk suñu ay frères à chaque fois c'est la kii qui montre tout ce qui est caché amoon na leen metti dégg ngeen ko di wax nag état ndaw ñëpp a bokk même jàngoro ñëpp a sonn ngalawaay boo leen di def na rafet waaye boo ngeen di def sóoraale leen ndaw ñi parce que saa boo ngeen woqee góom rek di geen am koo ngeen gaañ defar nat moo baax ci réew waaye boo ngeen di defar na ngeen ci ànd ak ndaw ñi boo ngeen di defar na ci réew mi ànd ndax ñu bañ a gaañ kenn c'était c'était votre reportage sur la TMS TV